mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak ñun ci Lou'Bess TV leen gërëm bu baax a baax ci gunge ngeen ñuy gunge ci programme Lou'Bess TV jaajëfal biir réew bi ak bitim nekk di ñu bàyyi ngi leen di kontaanee bu baax a baax Lou'Bess Actu comme ni ñu koy defee saa su comme ni ñu koy defee ci réew mi yëpp ah euh, li nga xam ne moo di information yi ba ngeen talloo au même niveau d'information ak ñun bu baax a baax ci gi ngeen ànd ak ñun ci programme yi Ahmadou Diallo mu ngi ak ñun saa ci plateau Lou'Bess Actu maa ngi lay nuyu baax a baax l'homme de Rebeuss euh, gërëm la ci teewaay bi bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci Lou'Bess Actu waaw di yàlla maa ngi lay nuyu bu baax aussi di la gërëm te sant yàlla rek comme ñëwaat nañu toog fii ci plateau bi ah di di la nuyu bu baax ah di di aussi di nuyu suñu suñu suñu kii euh, Sonia day daw rek day daw war nañu lijjanti ay mbiram ko day daw day tappale mm-hmm. waaw Lou'Bess Actu comme d'habitude rek ñu jukki un nekk ci actualité bi nga xam ne ne. fu neen moo nekk ci kaw ñëpp di ci wax ñu waxtaanee ko rek ku nekk joxe sa avis quoi. incha allah mu ngi doon Ahmadou Diallo moo ñu ne mbokk yi eh, yéen a ma gën a xam lu bees jël waxtaanee ko donc ci ak yéen bu leen fàtte saa di bàyyi seen i commentaire ak eh, seen i avis ci eh, li nga xam ne moo di commentaire yi ci suuf bu leen fàtte di saa di abonné di partagé koy dooree ak li nga xam ne Ahmadou Diallo moo jëm ci wàllu DGE donc fi mu toll nii li nga xam ne moo di élection présidentielle yi ñu dëgmal li nga xam ne moo di réew mi. waaw gis nañ ko euh, keroog de parrainage yi coow yi bëri woon na trop. Mhm. li ci ëpp ci coow yi mooy fiche de parrainage yi nga xam ne moom la ñu xañ Ousmane Sonko. Mhm. Euh, ñu gis ne mm, bi experts yëpp toogee dañoo ne DGE liggéeyam yeggul foofu. Mhm. alors les Sénégalais se sont la question à quel niveau wala à quel moment. la Sénégal yegg fii boo xam ne benn institution lii du liggéeyam mu def mu def ko. Mhm. parce que euh, kuy arrêté benn candidat loolu conseil constitutionnel moo koy décidé. Mhm. pourquoi DGE tey Ousmane Sonko un citoyen sénégalais dem. Mhm. te boo xoolee ñaari euh, procès yi ñu tax ni topp ko muy bu euh, Mame Mbaye bi ak bu Adji Sarr bi ba léegi li ñuy wax rek. mbir yi amagul fina amagul fin. alors pourquoi DG moom li nga xam ne moom du compétence am du liggéeyam. Mm-hmm. mu sañ ko def. Mm-hmm. ah gars yi ñëpp soo xoolee les réseaux sociaux yi et dañu ne peut-être information bi walla ndigal bi dañ ko jot jot ci kaw ci autorité yi. Mm-hmm. alors ça ça fait peur un peu quoi. ndax ñun suñu ay institution dañ leen fi teg. leen fay suñu xaalis. suñu xaalis dañ leen fay. ñoom bu ñu demee bay bay def li nga xam ne moom la buur bëgg. day xaw a ñaaw. kon war nañu war nañu war nañu tiit fu mu toll nii quoi ñun Sénégal war nañu mm-hmm. tiit war nañu am benn ragal. Mm-hmm. ndax euh, ku nekk sa liggéey da ko xam te ku nekk da war a yem sa place. Mm-hmm. kon DG li ñu def nii sénégalais yëpp nag. à l'unanimité dañ jàpp ne que DG dafa waroon a yem place am. xam fi ñu ko yemloo mu def liggéeyam bañ a dugg ci lu yoonam nekkul. Mm-hmm. mais élection yi dëgg ma la Ahmadou Diallo je beaucoup de candidats candidats yi nga xam ni ay candidats ay François Hélène mm-hmm. ne mu ngi nekk di ko def population bu génn di ko yeneen ak yeneen je vois aussi un Ndella Madior Diouf bu bu jëli fichier am ci li nga xam ne moo di pour pour naa am mu mel ni candidat yi ñu ngi ñu ngi signalé xam nga di Diallo dafa am yoo xam ne ne pour man euh, xam nga fi Sénégal toll nañ ñu waxante dëgg rek. te bañ a raay raay bi te bañ a topp bi beeg coow li affaire yooyu y a de ces personnes dañuy def nii pour xumbal. Mm-hmm. dañuy def nii pour xumbal vraiment mais xam nañu ne euh, chef groupe di euh, gérer groupe WhatsApp sax mënuñu ko. sérieusement qu'on se dise la vérité. comme le cas de qui. non bari na sax groupe WhatsApp qu'on la vérité. François Hélène la vérité kii am na ñoo xam ne. ñu bokkal ndey ak sax duñu leen votel mhm. boo dee ba ki nga bokkal ndey ak du la votel sàkkatuma nag euh, peuple bi te ñu ñu respecter la population sénégalaise. Mhm. ñu respecter un peu les mhm. ndax man Paxar su ma gisee yenn yi damay ne kii dafa dafa sàgg sénégalais indirectement. parce a de Euh, président du du n'importe qui lañ koy tabb quoi. Mhm. Euh, euh, te fi ñu toll nii Sénégal sénégalais mën nga ko mën ko reprocher lépp. Mhm. sëf idiot. sénégalais gën a muus kuy muus moo gën a yeewu ku yeewu. Mhm. kon yëfu dof yi yenn candidats yi nekk fii def di tëb di dal. vraiment épargne ñun dañoo dañoo soxla fu mu toll nii lu sérieux quoi. <laughs> dañoo dañoo toll si lu sérieux on en les élections c'est en 2024 monde bouge location bi métti na. courant bi métti na dund bi métti na. Mhm. sénégalais loolu lañ tal mais vraiment ñi ñëw pour def euh, pour def comédie vraiment restez chez vous ah, s'il vous plaît. Mhm. lii diriger réew mi du caaxaan quoi. mais mais la révélation donc comme ni may wax euh, Anta Babacar gis nañ tournée yi population ñu ngi di ko génn di ko wuy si ah. allo. Mhm. buñ nax suñu bopp. ku dem Mbour fekk Kankourang bi nga jug jug ci biir ànd ak ñoom ku génn ci mbedd bi Sénégal boo génnee mais Kaolack wuy nañ ko Kaolack génn nañ. génn man mii bu ma duggoon tey woote booloo am ko yomb na mais bu nee fàtte on parle du sérieux on parle du président de la République. mais liñ naan liñ naan ci sérieusement man man je vois pas. Euh, gis nga ku mun nekk chef de quartier mënoo nekk président considéré xam nga affaire bi du du affaire koñ du affaire de biir néeg du affaire de kër. on parle de présidence de la République du Sénégal ki nga xam ne ni jamono ji moo mën a jëlee sénégalais yi ci ndóol génnee sénégalais ci chômage génnee sénégalais ci jafe-jafe yi nekk nii du ko dund on parle de ça on parle pas d'une personne bu ñëw bëgg def campagne wala bëgg c'est bien beau gisoon nañu ko fii ay ay ay kii euh, euh, nut sax. Euh, en en 2012. 2012 mhm. gis nañ fi façon candidat bu ne. Mhm. Juma Jeng Jaxate. Mhm. ah Juma Jeng Jaxate gis nañ fi en deux 2019 kii euh, Madické Niang sa copain toj rajax yooyu yëpp c'est des comédies te bëri na ah. koy def jamono ji nañ leen jàppee comédie ay comédiens rek mhm. mais après ci parrainage bi lépp dina leer parce que sénégalais sénégalais moo moo dofatul sénégalais dañoo yeewu mhm. dama jël sama ak carte d'identité man man man carte d'identité man sama pièce d'identité moo ma gën mhm. ma ko jël di xool benn vraiment un comédien di ko di la ko di la ne sénégalais dofuñu quoi sérieusement que que ñu épargne ñu lii yëpp quoi coow lii yëpp nañ nañ nañ na pousse suba sax xam naa yow booy yow mën nga dem retirer ah, sa bien sûr yi ñi nga xam ne ñooy les prochains candidats donc ci élection présidentielle yi ñu dëgmal comme ni ñu koy waxee actuellement nag ñii signalé ko ne ay candidats lañ bëri nañu lool mais ñu xool fan la wànnent di mujjee ki bëtam ñu xool ñaata candidats la ñuy am euh, au final donc pour xam donc ñaata candidats yi dem ci élection yi en tout cas moom euh, ils sont trop nombreux donc ñiy signalé actuellement pour l'instant il y a 206 xam loolu noonu bu fekkee validé nañ deux cent six yooyu noonu. moom campagne boobu noonu dina métti di retirer quoi. di retirer ça sera difficile donc mu ngi noonu en tout cas jëm ci wàllu politique. Euh, loolu la ñu ci réservé pour lu bees ak ci Ahmadou Diallo on parle aussi tamit ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu euh, fait divers yeeg people yeeg yooyu mais temps yi gisaat nañ euh, donc avant bu ñuy ñëw rapport yi moom nañ leen tege ne classe bi moom seen biir la mbalax ma ni tamit classe bi seen biir la ñu ngi koy commencé mais. classe entre aussi les célébrités ñu ngi koy commencé di gis comme le cas de Fou euh, Fouta Tampi ak Nabou Daas. waaw xam nga c' est c' est désolant quoi Alou. Mm-hmm. parce que tey boo xoolee seen classe bi fu mu commencé ça ça vient de de la journaliste Astou Diom. Euh, mm-hmm. on la salue de passage. Mm-hmm. notre consoeur. Euh, man bi ma seetaanee bon seetaanuma live bi mais dama benn extrait live bi ma seetaan. Mhm. ma gis Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi. Mhm. parce que bu ñu fàtte ne euh, Asou moo nekkoon soxnaay. Mhm. Cheikh Yérim Seck. Asou Diom uh-huh. divorcé nañu. ba il paraît que dem nañu tribunal da ko mayoon kër ak oto. Asou Diom moo moo gagné. du coup elle s'est remariée tout na avec euh, un cadre de la Sonatel et tout mais bi ñu gisee bi ñu marié le lendemain rek. coow li fa commencé bari. te Asou Diom mën ko waxal lépp lu ñaaw ci Sénégal. mais duñ ko waxal. c'est c'est une femme pure. Mm-hmm. c'est une personne de valeur. Mm-hmm. am na yar am na teggin. Mm-hmm. kenn mësu ko dégg ci benn coow bu ñàkk fayda. amul sénégalais bu mën a taxaw ni dégg naa assu jom ci coow bu ñàkk fayda. bi sëy jotee dafa dem sëy. yàlla dafa weddi mu tas keneen takk na ko mënoon toog def ni ko te elle est belle. mënoon na def lu ko neex ci réew mi. mais tey bi loolu amee le lendemain mu sëyaat ñu gis le lendemain Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi def live. am kuy wax ne ko Astou Diom lu indi divorce am ak Cheikh Yérim Seck mooy Cheikh Yérim Seck fekku ci moom ndaw. man je ci ban Sénégal lañ nekk. c'est trop amatu fi. Euh, yàq der. Mhm. même bu amoon loolu moom yoonam nekku ci. Mhm. yoonam daf cee nekkul. et je me dis que ñun fi ñu toll nii am na yoo xam ne du du du police moo koy lijjanti wala justice. nit ak nit moo koy lijjanti. Mhm. parce que man man man man li may njëkk a euh, mooy la famille de Astou sa famille. parce que nga euh, am raq bu mel noonu. Mhm. nga gis ni ni mu yaroo. ni mu mhm. amee teggin. Mhm. ni mu ni mu ni mu ni muy ragalee def yenn yi. et puis dégg mu wax li muy nekk ci télé def émission am. kenn mësu ko dégg teg teg asu te wax nañ ko fi lu nekk ah. mari trois pom juñ na ko fi ëmb yàq biir. ba tey diggoo ko mu mu kaas dafa ne bàyyi na leen ak yàlla. kon man lii bu amee pour man te xalif kii Khalifa Sall gis nañ ko lim ci wax. man je bi bi bi vidéo yi génnee. sa famille devait réagir ma réagir mooy lan dem jàpp ñaar ñooñu ñuus leen. déedwaay man sama sœur ku ko wax yenn yi ci réseaux sociaux. mu ne ko bu sii. allo du ma tëdd ci tëdd ci lal. Mhm. tëdd ci lal. Mhm. te waruma la ci Sénégal foo ne. Mhm. fekk la fa. ba buddi say bëñ. parce dafa dafa ñaaw quoi dafa ñaaw ci ci ci gis-gis ñaaw ci ci jigéen joo xam ne une femme de valeur ñooñu di wax yëpp moo leen gën. kenn mësu ko gis muy taxaw ci télé bi di ñaan. Mhm. kenn mësu ko gis mu saaga ci tele mhm. kenn mësu ko gis mu wax wax ju safaan ju rëy te ñi ñuy wax ni chaque jour bu ñu yeewoo ki ci kenn ki moom maa ngi ko dégg keneen ki ñu ko jàppoon ci ay jëw. Mhm. jàpp ko ci ci viol. dóor jigéen ku góor ki. ku jigéen ki tout récemment gis nañu fi mu def vidéo di ñaan ndimbal ndax lu mu fayee location. na dem ama na dem fële. UCG. Mhm. di posé fa CVM di uti liggéey. Mhm. moo gën li mu nekk ci réseaux sociaux yi. Mhm. chaque jour nga xool nit koo xam ne ne moo la gën juddu gën la démb gën la tey nga jàpp ci deram bi toog ci di ko wax wax yu ñaaw. bu nekkee elle n'est pas vierge bu ñu seeg jëkkëram loolu sa yoon nekku ci. du sa mbokk bokku jëkkër ji bokkoo leen aadama ak awa. dafa dafa dafa ñaaw quoi. ku ne dama dama koy natt ci sama bopp natt ko ci samay sœur bu leen nii bu ko nit waxoon ci ñoom. sama réaction quoi. Mm-hmm. ñàkk a maandu aussi euh, ci réew mi xaw na métti trop comme ni ñu ko waxee sénégalais day denc li nga xam moo di paanam ñëw di lijjanti sa potunda loolu moom jikkoy sénégalais cette dame elle est folle. waaw waaw wax dëgg yàlla loolu moom yàkkante bi tamit dañu ko bàyyiwaat bu baax a baax parce que woykat bi wax na euh, réseaux sociaux internet nekkul lu bon kaka yor su ko bonalee mu bon donc te ñit bu ci jéemeel def lu bon euh, ay du yam ci boppi borom donc nañu bàyyi bu baax a baax. xel loolu noonu. pourquoi Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ba léegi yoon mënul def liggéeyam ci moom. parce que chaque jour mu ngi jël ay gor. Mhm. di leen waxal lu ñaaw chaque jour mu te xam nañu la ñuy xaar. Mhm. nit réagir dóor ko fi gaañ ko fi. Mhm. après nag coow li ku nekk nag ibbi sa làmmiñ. mel ni ku takk au parleur. wejje je waruñu ko dóor waruñu ko def. alors que elle a blessé des gens. ba seen biir fi mu gën a soree parce nga toog tey gis une femme de dignité bu mel ni Astou Diom nga dafa dafa rafetul ci gis-gis en tant que jigéen te moom elle a elle a beaucoup de problèmes ah. moom waxuma moom fii am parce fii la taxaw ne sama sëy li ko tas mooy dama dem meeting sama jëkkër mm-hmm. man je la considère mm-hmm. sa doom bu jigéen ngi nii def lu ne ci réew mi. dem nañ ba jàpp ko fi fan yi ci ay affaires yu ñàkk fayda ci cité mixta yow pour man li nga war a def mooy dem sa doom maa nga moo gën nga dem di li sa doom ko sa doom mi ngi am doom te amul jëkkër war nga dem lijjanti loolu ki nga dem lijjanti ay virginité jàmbur quoi. Mhm. sérieusement. Mhm. c'est un peu compliqué donc comme ni mu koy waxee rek Sénégal bi ñu nekk moom nañu yàlla gën di suturaal saa rek ñuy dox ci li nga xam ne moo di jàmm comme ni ñu koy waxee Amadou Diallo ba tey euh, du ma euh, tegee parenthèse boobu noonu damay ñëw justement rek juste ci li nga xam ne moo di euh, entre problème bu Bastung Subatel ak li nga xam ne moo di Ousmane Bongo dégg nga artiste bi ñu fi invité tout récemment donc mel ni ñoom artistes yi ñoom. dem seen biir ñu ngi commencé waat def ay révélation classante bi seen biir mbalax maani moo xam nga comme li ma wax chaque jour rek mhm. moo tax bu ma nit parfois je vois des filles wala des garçons mu ne dañu bëgg dugg ci monde showbiz bi dugg ci euh, presse bi mhm. dugg ci animatrice yi dugg ci lii dugg ci lii wala dugg ci série yi a dama leen dem wallaahi jaru ko mhm. c'est te monde de du du du du vie bu bu bu bu nu mu ko mën a wax sax lu juste quoi du lu honnête parce que lekkante rek moo fa am. Mhm. day ànd ak kii tey nga tagg ko suba nga waxal ko lu lu mhm. ñaaw. Mhm. alors seen vie la. vie bu c'est vie de merde sax lañ mën a wax. parce li fa nekk ci débouché li fa nekk ci wax ju bon wax ju ñaaw dafa bari. mais mais mais ci cas a jaaxal la ñuy dégg muy wax Ousmane mais Bass ba tey dégguñ mu yëkkati. mais xam nga nit dafa am lu wax lu wax. Euh, euh, le le silence en en tey gis nga am na yoo xam ne bu la ko nit di wax. mën nga ko fajal sa bopp ah. nga jóg. fekk fi mu ne. Mhm. jàkkaarloo ak moom su sa moroom góor nga lijjanti ko. Mhm. nga lijjanti ko. Mhm. ci doole. ak ci dóorante. mën na nekk parce que xam mën na ko gérer ak loolu. mais day am parfois day am benn benn maturité booy am. ak nga bañ ko def bañ topp nit ki bu nit ki la dala attaqué euh, moo tax man saa gis na soo fekkee coow nii. ki ñu tooñ bu réagir rek. man damay damay d'accord ci ni mu réagir parce jàpp ni peut-être laal nañ fi ñu ko warul laal. Bass Thioung borom kër la am na njaboot. xaw ma na arrêté li muy def. Mhm. bas mën na ko fajal boppam. Mhm. mais na arrêté su ko su ko wala lenn. Mhm. mais na arrêté li muy def li amul benn sens quoi. c'est ça donc mu ngi noonu Ahmadou Diallo fi ñu eh, mujjee donc ndar képp émission bi mu jëm ci wàllu tàggat yaram coupe du monde euh, ñi nga xam ne ñoo di euh, muuma yi euh, comme ni ñu koy waxee fii ci Sénégal ñu baal ma ci kàddu ñi nga xam ne maanaam suur mieux lañ leen tuddee ci nasaraan Sénégal jamono ji mu ngi ci li nga xam ne moo di Caradas bi donc mu ngi ci demi-finale yi euh, mu doon euh, la nga xam ne tamit seen i début métti woon na bi ñuy dem amoon nañ problème mu ay billets déjà ñu ngi dem dosaar yi ñu entraîné sax amuñu ko donc ay njaxas la ñuy def ku ci nekk entraîné bu match jotee donc lañu am moyens yu ñu sol euh, te man li may xaw a jaaxal mooy gisuma benn yoon fédération seen page ñuy publier match Sénégal yi alors que lii football la pour man tout ce qui est football fédération Sénégal de ko waroon gérer. parfois da ngay gis yoo xam ne fii ci Sénégal da ngay bëgg am envie rek génn dëkk bi parce que da ngay ruus tey déjà ñoom isson isson ils pour représenter le Sénégal. Mhm. ci compétition bu doy nii. et ñoom ñoo njëkk andi coupe d'Afrique rek ci réew mi dem ci compétition man bu dul bu dul dara ñu yërëm leen. Mhm. parce que ñun tey yàlla mayeen matal la ni lépp. te ñoom tamit macha allah. Mhm. kenn du leen xool leen xeeb. mais am na lu yàlla jël ci ñoom. loolu rek war na tax benn yërmande am. dem di football coupe du monde ci condition yoo xam ne da ngay badaas mhm. man moom fédération sénégalaise de football moom xam nga du leen mës a raayal mhm. ndax man dama cee mësul d' accord ci ni ñuy liggéeyee mhm. dama ci mësul d' maa ngi dégg démb am ñu naan non ñii kenn affilié yoo leen ci fédération football football mais football la ñuy def en plus lépp lu ko coiffé mooy ministère de sports gis nañ fi ay mbër ñoo xam ne ci réew mi lañ ne ñu fi dara Mm-hmm. jël ay 500 millions di leen may ñu koy séddoo ak affaire yooyu. Mm-hmm. booy yi ñoo leen ëpp valeur. Mm-hmm. booy yi ñoo leen ëpp dignité. booy li ñu représenté Sénégal mbëri représenté wu ñu ko Sénégal parce que dañoo génn jël suñu drapeau yóbbu ko mbër bii fu toog fii di bëre sa poste la jëm sa bopp ngay liggéeyal mais ñii dañu dem représenté ci Sénégal. ñàkk kon nañ leen considéré jox leen respect. tey boo xoolee coow yi fi amoon à l'avance ay ci basket bi ah? nga gis euh, kii yenn basketteurs yu blessé. Mhm. ñi ñëw duñu leen sax jël en charge. ministère des sports sax du leen jël en charge. Mhm. maam jooju gis nañ ko fii. Mhm. yeneen ak yeneen yooyu gis nañ ko góor ki santoon Ndiaye gis nañ ko fii. alors day euh, góor gi Sidien dem na ba jël xaalis ma def ci basketteurs yi bi ñemee fi compétition. ñi lekk seen biir di daw parce que lekk bi ñu waroon lekk lekk ñu ko. tey ñu yegg ci ci ci ci mbir la boo xam ne da doon raam. te li ñuy wax lu raam rek ci ñag ba la jëm mhm. yegg na ci ñag bi gis nañ ko fi bu dul footballeur yu mag yi fii Sénégal considéré wu ñu yeneen yeneen yeneen yeneen sport mhm. fi yenn trophée yi ñu door la lay jënd xoolal yeneen yeneen discipline yi mhm. dafa dee parce que da ngay dem rey fi sa bopp da ngay jël sa temps yëpp passé ko fa rey sa bopp te après doo ci am dara te man taman li may njort Ahmadou gëm naa ne bu ñu demee ci compétition ba jël final bi gëm naa ne sénégalais yi foofu lañuy door a réagir loolu après nga gis ñëpp jóg dañ leen bi nag xam na ñoom man dama leen bërngal ñoo taxaw nag. Mhm. taxaw ci kanam nag bëgg a aakimoo xew beeg événement bi. Mhm. alors que booy yi. Mhm. da ngay gis ñuy ñuy entraîné amuñu sax dosaar. ñuy entraîné amuñu dosaar nekk ci condition yoo xam ne. yow da bëgg rek pendant ce temps y a des gens qui qui qui ci ci ci alalu Sénégal la ñuy dundee. te defaluñu Sénégal. wallaay wallaay ñu tooñ tarafalte ay nit ñu ngi ci lekk lu bari. Mhm. alors que booy ñu ngi ci condition yi quoi. Mhm. vraiment c'est c'est honteux. Mhm. un peu compliqué ñu ngi ñaan euh, ñi nga xam ne ñoo di njiitum réew bi la ñuy commencer li ñuy ñaan donc wàcc ci ministre de sports Amadou Ba donc ba ci fédération bi président Augustin Senghor ñu gersu bu baax a baax équipe nationale Sénégal su mi yooyu donc que ça soit muy compétition bii moom bay wéy na mbuus beneen compétition buy ñëw ñu bàyyi leen xel que ni Sénégal la ñuy représenter ils sont les premiers yi nga xam ne ñoo andi Coupe d'Afrique donc de nations fii ci réew mi avant que génération ñoom Sadio Mané ñoom seen génération andil nañu Coupe d'Afrique te bientôt am nañ yaakaar Coupe du monde bi dina ñëw ci ñoom donc ñu bàyyi leen xel bu baax a baax Amadou kontaan naa trop donc ci teewaay bi ci Lou'Bess Actu euh, gërëm la bàyyi la nga tàggatoo ak téléspectateurs yi ñu doon. waaw ah, di la di la gërëm bu baax di Alou te di wax aussi tamit mhm. parce que euh, euh, Sénégal ci stade bu mu toll dafa dafa dafa. Mhm. ku ku tiitu man tiit naa. Mhm. parce que tey alu jote naak alu rek dem naa ci réseaux sociaux yi. Mhm. weer ko. Mhm. tey jote ak libaas libaas jaar ci alu. parce que nii li ñu def nii jamono ji soo ko xoolee xam na ne intérêt moo tax ñu def ko wala am na lu ñu encaissé. Mhm. nga dem jàpp deru joomu jàmbur yàq ko yàq ko yaxet koo xam ne boo xoolee ci fi nga sosoo ba fii moo la gën ci lépp. moo la gën ci zaahir gën la ci baatin. et et qu'elle soit courageuse quoi asu asu defoo fi lu ñaaw loo xam ne la koy xoolee. defoo fi li ñaaw loo xam ne ne ëllëg boo rombee ci mbedd ñu joxe ne la asu jon mi moo defoon lii kon ñi lay waxal nga xam ne fu ñu rombee ci mbedd génn ñëpp ne leen cim ñoom ak mbedd lañ considéré kon yow ñooñu bu ñu la waxee waroo sax am lu la metti lekkal ba suur naan ba màndi tu gères euh, sa am solo mu ci profité di ziar bu baax sama benn copain Ousseynou Youm depuis France doomu ndey Jules Faye sama samay gaañ lañu samay waay lañu c'est des complices Ousseynou jëmm la boo xam ne bu xamee dama jot ak yow sax. Mhm. da lay bàyyi yow. bu xamee dama jot yow. Mhm. bàyyi na la. alors sama sama doom nday la sama partenaire de guerre la et la ñaanal yàlla suñu borom chéri maman di la ñaanal yàlla suñu borom defal la tawféex ak jàmm ak salaam te lépp loo yor rek nga jot ko incha allahu bi mhm. jaajëf. merci beaucoup Amadou Diallo merci beaucoup téléspectateurs internautes yi àndoon ak ñun ci Lou'Bess Actu jaajëfal leen bu baax a baax dig daje ba beneen yoon incha